ay ndaw yoo xam ne dañuy jël gaalu loo ca wutali tugal loole sax jaarale ko fa nga xam ne mooy ci dindu Afrique daan ne kat ñoom dañoo bëgg a tekk di nga xam ne daal mooy waax yi nag moom daanaka sori lool waaye tamit euh, di daal di sax li nga xam ne wanaasu ay nit ñu bëri gis na ne kat mbir mi metti na waaye tam jaaxal ñu bëree bëri mbir mi nag moom njàq rek tiis daal di dal ci Sénégal ak la ko nag moom mooy mu nekk ci digg li nga xam ne daal mooy attraction ci ndaw yi nga xam ne ñoo bàyyi ko Sahel ak dëkk yoo ko wër ba tax na li nga xam mooy Barça wala Barzak dafa nekk ak wàññeeku feebar ñu bari yaakaar ni kat li nga xam ne daal mooy départ yu bëree bëri dana gën a wàññeeku sax ndax gis seen ne la cay faatu bari na am ñoo xam gisatuñ leen na waaye tamit war nañoo daal gën a surveiller li nga xam ne mooy géej gi waaye tamit la nga xam ne mooy baral procédure yi nga xam ne mooy tax ñu jëli ña dem ñu daal di indi ci dëkk bi nga xam fa leen bàyyi ko ñu bëree bëri yaakaar na lii nag moom euh, duñ ci banque seen i loxo waaye ñu am ñoo xam ne am nañu ay projet yi nga xam ne daanaka akub gént la waaye tam loolu sax état bi ci boppam la daal di dal ñu bëree bëri nag moom daanaka tàmbaliwaat nañ sax jëlaat ñi nga xam mooy yoonu géej gi am ñoo xam ne kat yoonu suuf si lañ jël wutale tugal mbir mi sax mi ngi fii waaye la ca gën a yéeme mooy ay jigéen rek la bari am ñoo xam ne tamit ay jigéen lañu naam faat nañu ay tuut tànk ak i parental waaye ñu gisee kat barsa wala barsax nag moom jafe-jafe la kon nag jot na ñu mën a waxtaan daal di xootal waxtaan wi fexe daal ba identifier lii nga xam ne kat mooy sabab li ak góom bi ñu mën koo saafara kon dafay mel ni kat lii nga xam ne daal mooy guerre bi nga xam ne moo am ci ndaw ñi fexe daal ba ñoom ñu daal di wutali bët gànnaar mel ni kat ku jëfru ndaw yi ñoom ba na ñoo xam ne dañoo jàppee seen bopp ak i soldat yaakaar ni kat ñoom koom moo tax ñuy daal di wuti wuti nag ba faf cay faatu ñi xam ne tamit ndax gis nañ ne ndax lii nag moom du dëgg yoon waaye li nga xam ne kat mooy sabab li war nañ koo mën a xam ndax it géej nag moom ma ngay wanaasu lu bari kon dafa mel ne li nga xam ne mooy toskare gi la wala sax dund ko weer yaan goo xam ne moom la ñu dund seen réew kon dafa mel ne bët gànnaar li nga xam ne kat ci wàllum koom moo ci gën a ëpp doole ñoom ñu yaakaar ne kat gis nañ buñ ko daal di dajee seen bàmbak maase kon nag wayaasa daal moom dafa mel ni akub gént waaye tànn gu ñu tànn jël li nga xam mooy gaalu loo ca loolee faatu la ak sax tuskare kon dafa mel ni li ñu ilaj dëgg mooy xeex bi nag moom war nañ koo mën a gën a tàmbali sensibiliser ndaw ñi kon bu ñu deful nànk rek ñoom lii nga xam ne gis na ni wàllum koom la te mu nekkum gént yaakaar ne kat bu buñ ko dajee seen lépp dana baax loolee day nekk aku feebar